tu layam layam yi ñun li waroon ci xeex xeex nan ko li waroon ci riposter riposter nan parce que régime lan fi fekk boo xam ni bu amoon doole régime boo xam ni dañ doon taxaw jàpp yooyu dama jàppal ma nit ñu jàpp ko ñun ñii ku ne gis na ni dem nan kaso am na samay collègue député yoo xam ni quatre lan yoo xam ni benn jour lañ leen jàppandoo yóbbu leen kaso sunu président groupe parlementaire Birame Souleye Diop jàpp nañ ko yóbbu ko kaso lu mësul xew Sénégal moo doon xew te teewul dañu tenir taxaw feer leen face ni leen carrément da ngeen ñuy rey ñun ñëpp rek mais li askan yu bëgg loolu ngeen di def ba yàlla def ci sutura régime bi dem na tey ñun ñi newoon euh, euh, opposition tey tey ñenn ci ñun ñoo jiite pouvoir bi ñu ñu nit wax dëgg yàlla taxawaay bi na am assemblée mooy ànd ak groupe parlementaire bi comme yeewi askan wi chart la woon boo xam ni ñun le pur dañu bokkoon ci charte bi wax dëgg yàlla ñun lépp lu yàq yeewi askan wi ñun pur kenn duñu ca gis moo tax ñun ñu doon ñu doon ànd ak ñoom ci ci ngor ànd ak ñoom ci ci vraiment euh, doxalin bu rafet ànd ak ñoom ci vraiment yëfu yëfu nit ak ak ak ak ak nawleem waaw yëfu àndu nawle lan doon àndeek ñoom ñun ñun ñun le pur moo tax wax dëgg yàlla euh, dañuy siggi parce que li ñu war a def def nañ ko ah jomaay nag wax dëgg yàlla président de la république dissoudre na assemblée nationale xëy na peut-être ñun xaay na xaar nañ ko xaaroon nañ ni assemblée nationale bi deux ans lay am mais nag li may ñaan mooy prochaine législature bi ñëw yàlla def ci jàmm te fexe ba yóbbu fa ay sénégalais yoo xam ni askan wi rek moo leen ñor. justement ñu terminé ci loolu li nga xamante ni mooy parti PUR ak parti PASTEF bi nga xam ne moom euh, le premier ministre Ousmane Sonko moo ko daal di jiite tey ana seen diggante naka lay doxee ak tamit euh, ban gis-gis ngeen am ci législative yi nga xamante ni ñu ngi koy daal di dëgmal. waaw xam nga gis nga li li ma mën a wax mooy ñun ñun ak PASTEF ñoo bokkoon yeewi askan wi ànd local. ku ci ne am ay maires yi ñun PUR am na amoon nañ ci cinq maires yoo xam ni am nañ cinq maires yoo xam ni PUR a ko jiite PUR am na benn conseil départemental bu Kër Massar bi jugee ci local yi ñu ni dañuy àndaat législative ñu àndaat législative PUR am na ci onze députés Pastef am ci vingt cinq foog na xalifa Sall am na ci aussi douze xaw ma treize de suite Aïda Mbodj benn Habib si benn Déthié Fall benn Ahmed dara benn léegi ñun ànd boobu nga xam ni ñun moom lañ doon àndee ci biir Yewwi Askan Wi ñuy ànd muy rafet ci groupe parlementaire bi ba bi ñu di dissoudre assemblée nationale ñun suñu digganteeg Pastef ñun ñu ngi ko doon doxal ni mu waree donte la bi ñu demee élection présidentielle ñoom ñoo gañe mais teewul ñu ngi doon ànd ak ñoom ci nanu ko waroon a defee parce que ñun ki ñu jiite muy Serigne Moustapha euh, nit ku gore la nit ku xam boppam la nit ku bëgg Sénégal la ku ne xam na position yi Serigne Moustapha doon jël ci moment yi Sénégal nekk ci crise mu nekk guide religieux ba pare di jël ay position yoo xam ni chaque jour que jëfee muy fare ci askan wi je me rappelle bi ñu waree voté ne si bi bi ma jógee fii Tivaouane di dem Dakar ci fajar gi bi may toll deux voies Thiès ci lan ma woo ni ma ki ma woo dani ma Serigne Moustapha nee na soo demee waxal député yépp ni leen bu kenn voté loi d'amnistie bi parce que Sénégal ñu fee def liñ fi def ba pare xëy bis ñëw ni dañuy raxas lépp kon kooku foog naa ni position bu ne jël na ko ci euh, biir réew mi kooku tey loyauté la doon ànd ak Yewwi Askan Wi le président Ousmane Sonko le premier ministre Ousmane Sonko taxaw na buntu kër Serigne Moustapha seede ci Serigne Moustapha ni mu Moustapha bu cotiser jotee mooy njëkk a cotiser ay otoom ci sunu convoi bi li ci ànd ci ay otom kenn xamul nu mu toll ba ci ambulance sax dañu koy yónnee buñ manqué xaalis Serigne Moussa dañuy yónnee xaalis bu waree mobiliser ku ne xam na pur bu sëriñ Moussa nee dem leen bërëb sàngam muy mag ndaw ak ñëpp dinañ sol seen i tiset dem ca bërëb ba sëriñ Moussa noonu lay àndeek nit ba fii ñuy waxeek yow rafet noonu mu doon àndeek yeewi askan wi noonu la nekkee di ànd ci yeewi askan wi. kon donc ñun jàpp naa ni ñun li ñu war yëpp def nañ ko parce que élection présidentielle dañ ni ku ci nekk da ngay wut sa candidat pur amoon na kandidaam dem na jël nañ troisième mais teewul ñun ñu ngi nekk ci lu nu nekk mooy ñun askan wi avant tout euh, askan wi rek moo ñu kii ñun ku ñuy àndali ci dëgg la ñuy ànd yow ku ñuy àndal ci bëgg réew lañuy ñuy ànd yow ku ñuy àndal ci xam li nga war a def ku ne gis na euh, Euh, meeting de clôture bi ñu doon def ca Géejawaay Ousmane Sonko jël na jël na kàddu wax ci PUR ni booy wut wut ñu xarañ ñëwal ci boo ñëwee ci PUR di nga leen fekk booy wut intellectuel soo ñëwee PUR di nga leen fekk sooy wut koo xam ni soo àndeek moom doo gersu soo ñëwee PUR di nga leen fi fekk ni PUR kenn mënatul a gouverner Sénégal te doo ci boole PUR Ousmane Sonko moo wax loolu kon ñun jàpp naa ni segam ña ca biti ñooy seede loolu ci PUR kon xam nañ li ne ci PUR ku ne gis na PUR organisation bi ñuy def ci ci wàllu élection wàllu campagne lépp ci euh, ci ci yar lañ koy def ci teggin efficacité effacement booleek lu waay mobiliser ñun PUR dinañ mobiliser lu ñu toll parce que ñun li ñu yor dañ koo moom de waaw ñun ay militants lañ yor xëy na nag euh, élection yi fi jaar ku ne gis na ni réew mi euh, sonnoon nan demoon nan ba kenn bëggatul résime bi fi nekkoon moo tax bari na ñoo xam ni sax fan lan voté sax xamuñu ko mais ñun liñ doon xeex xeex xeex li ci ëpp solo mooy résime bi jóge fi dictature jóge fi jàpp nit moo kii yee ma neex neexuma jël leen ngeen tëjal ma jóge fi yeneen ak yeneen jóge fi xëy na nag ñi fi nekk nii mënagunoo ñëw def lépp donte la ñu ngi góor góorlu pour le moment xëy na lépp mënaguloo sot parce que cinq mois xaw ma six leen fi defagum mais nag li ñuy xaar am na lu ñuy xaar ci ñoom parce que li tax ñu jëlee fi Macky Sall teg leen fi mooy rupture bu efficace lanu soxla te loolu foog naa ni ñoom conscient nañ ci loolu ñun nag comme ni ma ko waxee rek ñun le pur ñu ngi déglu le président du parti muy Serigne Moustapha si parce que ku ne xam na ni Yewwi Askan Wi ci baatu Serigne Moustapha la la ko nit ñi njëkk a déggee mu annoncé groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ku ne xam na ni Yewwi Askan Wi mooy Yewwi Sénégal parce que maire yi fi doon lapp-lapp yi Yewwi Askan wee ñëw nangu foqati maire yu bari ak ay conseil départemental yu bari ku ne xam na ni assemblée nationale suñ demee ba opposition am fa quatre-vingts sièges ku ne xam na ni Yewwi Askan Wi da cee liggéey lu bari ku ne xam na ni élection présidentielle yi donte la ñi gagné Diomaye président moo dem mais ku ne xam na ni Yewwi Askan Wi liñ ci liggéey kenn xamul nu mu toll parce que dañu nekkoon ñun di liggéey Yewwi Askan Wi mais ci moment boobu Ousmane Sonko nekk ci ay tolof-tolof tout le temps Ousmane sunk ngay dégg Jomaay Ousmane Sonko Jomaay bari na lu Yewwi Askan Wi doon xeex loo xam ni ñoom ñoo ko bénéficié wu mais sant yàlla la parce que ñun ñoo àndoon dañu jàppoon ni ñun Yewwi Askan Wi ku ci doon ci ci candidat yi kenn moo ciy jiite ëllëg Sénégal te loolu yàlla def na ko kon ñun am nañ satisfaction totale wax dëgg yàlla di ñaan yàlla def jàmm ñi ñi ñi nga xam ni tey ñoom lañu wóolu ba dénk leen réew mi ñu yërëm askan wi fexe ba ñëlee la taxoon ñu jëlee leen fi ñoom ñu bañ a jaar ci tànk yooyu. donc ñu ngi lay jaajëfal honorable di la bàyyi rek nga daal di tàggatoo ak internetu sans limite TV. waaw xanaa di leen gërëm rek yéen waa sans limite macha allah ñu ngi leen di gis partout fépp loo xam ni rek gis na ni euh, actualité la ci réew mi. yéen vous êtes présents wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant ci loolu